leeral taar di seen émission préférée di am fii ci leeral TV ak leeral point net canal 33 tey nag ñu ñëw fii ci boutique solu ba rafet solo ba rafet nag mu ngi nekk fii ci Liberté 6 extension ci côté Auchan bi kenn du wax solu ba rafet te waxoo mode ak beauté tey nag ñu ñëw fii seet si ko rawatina ci mois de décembre bi mu def ay promo yu am solo boo fi duggee da ngay gis sañse dugg mode ak beauté am tendance bëgg sol yére yu classe dàll yu classe ay sac de marque tey nag ñu ngi ñëw fii ci Liberté 6 ci côté Auchan bi soriwul dara boo ñëwee fii ci côté côté Auchan bi da ngay gis boutique bi solo ba rafet léegi nag ñu dugg si biir xoolal leen solo ba rafet tey lan la indil ci seen émission leexal taal aja topp leen ma sama gaay Sénégal Star di am tous les mercredis à 16h tey nag waxoon nañ leen ko sànq bi ñu ñëw fii ci benn boutique bu buy jaay prêt à porter ñu koy wax solu ba rafet solu ba rafet nag mu ngi nekk fii ci Liberté 6 extension euh, boo fi ñëwee di nga am sañsee lépp loo xam ne ci wàll ci wàllu mot la tendance ak beauté di nga ko tey nag dugg nañ ci biir boutique bi boo leen duggee si boutique bi rek xam ne di nga fi fekk ay dàll de marque lépp loo xamante ne si ne wàllu lu jëm si sañse la rek di ko fi fekk ak mois de décembre bi ñu nekk nag xale yu jigéen yi ñëpp képp koo xam ne bëgg nga sañsee am nga anniversaire war nga dem dîner bëgg nga sañse lu classe lu rafet rek boo ñëwee fii solo ba rafet di nga fekk lépp loo soxla gis nga mi ngi nii dangay ngay ñëw fekk fi ay dàll ay saak gis nga sac de marque yi ñu ngi nii dangay ñëw fekk ko fi ay saag yu rafet yoo xam ne am na classe ay mini sac ay sakos voilà mi ngi nii yëpp ay ay mini sac la. may wax nag képp koo xam ne yaa ngi suivre émission bi après ngeen jël numéro bi ngeen woote ngeen ñëw fii ci Liberté 6 extension ngeen ñëw si boutique solu ba rafet boo fi ñëwee di nga fi fekk ay sañse yu rafet yu am classe yu marque yoo xam ne foo ko sol ñu laaj la ko ci décembre lañ nekk xale yi bëgg ngeen sañse bëgg ngeen génn ànd ak seen alaaj yi ngeen couplé xam nga il faut nag nga sañse lu am classe bu ko defee ki àndal mën la respecté xam ne yow sañse nga lu am classe solo ba xafet nag yemul kese ci dàll ak saak ak ay sañse daf leen indil ay flaax yu am classe ay flaax yoo xam ne dafa nekk tendance am na ñoo xam ne dañuy préféré bu ñu solo ba pare jël benn flaax teg seen bopp ñi nga xam ne aussi bëgguñu seen bopp di feeñ ñuy def ay bopp neen boo ñëwee fii di fi am ay flaax yu rafet yu am classe ay différentes couleurs gisoo yii yëpp ay flaax la si boutique bi solo ba rafet rek ngeen ko mën 77 174 96 96 boo leen ñëwee da fi fekk gérante bi dina leen accueillir jaay leen ba ngeen kontaan. boo leen ñëwee di ngeen fi fekk gérante bi di Yacine madame Diouf dina la accueillir jaay la ba nga kontaan mën ngeen jël numéro bi ngeen woote 77 174 96 96 ñu ngi nekk ci Liberté 6 extension côté Auchan bi soo jëlee numéro bi rek gisoo yëpp ay foulard la boutique bi euh, boo fi ñëwee di kontaan voilà mi ngi noonu yii yëpp ay foulard la yoo xam ne si boutique bi solo ba rafet nga koy fekk solo ba rafet boo ñëwee di fi fekk dàll di fi fekk sakos di fi fekk yaa bi gisoo ay différentes couleurs la bu la dàqal nag nga ni bii la yëpp rafet ay fleurs macha ay saag saag yoo xam ne saag yu mag la ay mini saag ay dàll talon dàll talon mini talon talon bu gudd ak dàll yoo xam ne rasé la pour suñu yaay yi nga xam ne dañuy préférer sol carax ak xale yu jigéen yi nga xam ne seen sañse bëgguñu ko boole ak talon parce que leen di sonal bu leen ñëwee fii ci boutique Sol bu Rafet di ngeen fekk lépp loo xam lañ ko waxee woon sànq bi ñuy commencé tey nag euh, leeral taar dafa doxantu ba Liberté 6 excitation ñëw ci benn boutique bu ñuy wax solo ba rafet solo ba rafet nag boo fi ñëwee di fekk lépp loo xam ne du jëm ci wàllu mode la beauté ak tendance ay dàll yu rafet comme ko wanee sànq ay ay sakos yu rafet ay foulard lépp loo xam ne du jëm ci wàllu sañsel ak décembre bi ñu nekk nii dañu nekk promo euh, du premier au 31 décembre boo ñëwee dinañ la wàññil prix yi nga sañsel la jaay la nga dem euh, fête sa décembre sa anniversaire wala nga bëgg dem diine lépp loo bëgg def rek boo ñëwee fii di fi fekk ay sañse yu classe yu tendance euh, tey nag dañu ñëwoon Liberté Extension kon nag euh, téléspectateur ak téléspectatrices yi ñu doon suivre ñu ngi leen di remercier euh, di leen jox dig daje mercredi prochain incha allah ci seen émission Leral Taar solo ba rafet nag mu ngi nekk Liberté Extension ku fi bëgg a ñëw mën nga woote ci numéro bi am nañ page Facebook Snapchat ak Instagram dañuy livrer di def vente en ligne aussi mi ngi nekk nekk fii ci Liberté 6 extension côté Auchan bi boo ñëwee fi dinga am ay sañse yu tendance yu rafet mais remercier ñi ma àndaloon ci ci ci ci sama sama réalisateur yu ñaaw di di Ablaye ak Aline Badara may may kontaan bu baax ci ñu doon suivre seen émission Leral Tar di leen jox rendez-vous mercredi prochain incha allah ci Leral TV canal 33